أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dooli xéewal te musal ko comme nin ko baaxoo def ñoo ngi ànd ak yéen ba tey ci téere yàlla bi toll ci suratu nisa bi iznil mawla jalla wa ala ñuy jël day ñetti aaya aaya 87 88 89 ñetti aaya yi sunu boroom subhanahu wa taala mi ngi ciy jàngal ñaari mbir bi ci njëkk mooy wujubu tawxid tawxidullahi taala mbokk yi ndeke loolu ñu naan tawxid mooy kennal yàlla dafa war ci ñun diine bu amul tawxid jullit bi du nekk jullit moo tax nit ñi war a sonn ci nunu mën a def pour am tawxid mooy wéetal yàlla tabaraka wa taala mooy def yàlla kenn ci jaamu gi ñu koy jaamu fi ibadatihi ci jaamu gi warunu dendale yàlla ak lenn warunu dendale yàlla ak kenn lépp loo xam ne dafa yàq sunu pas-pas ci sunu digganteeg sunu borom war na noo moytu loolu ndax tawxid moom mooy islaam diine ji dem ak dikk lépp mooy tawxid ku amul tawxid nekkoo jullit ndax munoo nekk taw munoo munoo am tawxid di bokkaale munoo am tawxid di dendale yàlla ak lenn wala kenn moo tax mbooleem yonent yi bi leen yàlla yónnee ñu ñëw ci kaw suuf li ñu njëkk a def mooy tabax tawxid ñoom ñëpp wa laqad baasna fi kulli ummatin rasul lu tax an ibudullah xeet bu nekk yónnee naa fa nit lu tax pour ñu jaamu yàlla pour ñu jaamu yàlla wa laqad uhiya ilayk wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk borom bi tabaraka wa taala nee na xeet wu nekk yow muhammad alayhi salatu salaam joxoñ naa la joxoñ naa yonent yi la jiitu woon nee naa képp ku ma bokkaale jëfam yàqu na kon bokk na ci ay ñuy jàng tey muy def war a def ci ñun ñu war a nekk ay nit ñoo xam ne dañuy kennal yàlla tabaraka wa taala dañuy wéetal yàlla pas-pas am tawxid ku am tawhid mbokk yi mucc na ku am tawhid adunaam baax na alaxiraam baax na ku am tawhid diinam jub na waaye ku ko ñàkk amoo dara tey nag xam ngeen ne loolu ñuy wax ñu loolu ñuy wax tawhid lu néew ci nit ñi la lu néew ci doomu aadama yi ñoo am tawhid kennal yàlla tabaraka wa taala ci jaamu giñ koy jaamu jaamu goo xam ne doo ko dendale ak kenn ñaareel mooy al imaanu bil baasi wal jaza aye dañu jàngal ñu war a gëm dekki waaye war a gëm ne bu nu dekkee yàlla dana nu fay loolu dafa bokk ci pas-pas gëm dee gëm ne boo deewee di nga dekk gëm ne boo dekkee yàlla dina la taxawal fay la xam ngeen ne yéeféer yi bokk na ci li leen yàlla xase mooy gëmuñu dekki zaama allazina kafaru an lan yubaasu qul bala wa rabbi la tubaathunna thumma la tunabbi'unna bima amiltum zalik ala allahi yasir yéeféeri nee nañ kenn du dékki loolu lañ wax moo tax ñuy def lu leen neex bal sax dañu ne in hiya illa xayatuna dunya namuutu wa naxya wa ma yuhlikuna illa dahr dañuy dund rek bu nu dee jeex na dara du xew ah loolu gars yi naan am na luy xew ginnaaw dee ginnaaw dee dara xew fa ku dee perte nga loolu moo tax ñii buñ deewee ñu lakk leen daf leen ay doomu taal daf leen ci ay butéel denc ñii buñ deewee ñu daf leen lakk leen daf leen ay doomu taal sànni ci biir géej gi ñu nekk selon que ni ñu gëmee jàpp ne dund kese la yow yaa moom sa bopp am na ñoo xam ne sax bu ñuy dee dañuy def testament bu ma dee na ngeen def nii sama yaram ñi ne bu ma dee may naa sama yaram nañ ko daggate li ci baax ñu jox ko ñeneen ñu du continuer dund ku nekk ñu nekk ak ñii nañ ma lakk ñu ma lakkee ba pare ñu def may butéel quoi rek ma ci biir kër gi waaw waa kër gi xam ne maa ngi fi loolu la yàlla dinu génneloo ci sunu xel loolu la yàlla dinu weddiloo dinu bañloo ku ne yàlla amul wala ëllëg ku dee doo dekk da ngay nax sa bopp yàlla ne xul waxal yow muhammad bala dëgg la de wa rabbi giñ naa ci sama borom la tuba asunna dinañ leen dekkil ku dund rek am bakkan foo ma ne ne yowmal qiyaam ëllëg di nga dekki taxaw ci kanamu yàlla ku gis aaya boobu ni ko yàlla waxee waxuma sax balaa bi waaye wa rabbi la tubasunna giñ naa ci sama boroom danañ leen dekkil ku dégg dëgg dëgg arab gis jumla quran boobu ni mu tëddee nga xam ne yàlla lu mu wax mooy dëgg ëllëg ñéppay dekki amul kenn ku dul dekki bu nu dekkee yàlla dana nu fay ndax loolu mooy mooy njëriñu dekki kat njëriñu dekki mooy sunu dekkee ñu taxaw ci kanamu yàlla ku doon def lu baax yàlla fay ko ku doon def safaan yàlla fay ko moo tax nit ñi kuréel gi ëllëg yowmal xiyaam nit ñi ñaari mbooloo kese la ashaabul yamin wa ashaabul shimal fariqun fil janna wa fariqun fi sair jeex na amul ñeneen même waa araaf bi ngeen di dégg àjjana la ñuy mujjee waa araaf àjjana la ñuy mujjee danañ taxaw araaf nag ci xam-xamu yàlla tabaraka wa taala di xool aljana la fa xew di xool safara la fay xew bu nu xoolee waa aljana gis xéewal yi ndaa ne ay yàlla dugal nu fii du ñu ñemee sax xool xool fee di gestu bu ne nii seen bët rek yaa ne ay yàlla bul nu bul nu dugal fii borom xam-xam wax nañ ci ñoom seeni mbir lu baree bari waaye lu lu fu muy teere rek mooy waa araf àjjana lañ jël mooy ñi nga xam ne seen bakkaar yi ak seen yu bon yi ñoo tolloo kon nanu xam ne dananu dekki lan mooy sababu dekki mooy yàlla daf nuy àtte waaw waaw danañ taxaw ci kanam mu àttenu ndax kat danoon nu woon di liggéey ci àdduna dafa am buur bu tudd allah bu nu bindoon indi nu am programme am bu mu tëral ne nii laa bëgg ngeen dundee ci kaw suuf lii laa bëgg ngeen def ah nunu am ci ñun ñoo xam ne la leen yàlla waxoon ña nga ca am ci ñeneen ñoo xam ne dañoo féeteeru dëgër bopp ne lu leen neex def yàlla dara la mënul ci ñoom ay affaire yàlla sax ay faux problème la munu kenn sonal ñun dañuy dund town bi quoi oui dañuy régler town bi loolu ngeen wax yàlla na baax na maa leen di xaar yàlla yàkkamtiwul wa ma antum bi mujizin fi lardi wala fi sama yàlla nee na kenn du rëcc ci yéen kenn la wax kenn amul kenn kuy rëcc waaw du ci kaw asamaan du ci suuf amoo foo jëm lu dul rek bis ñëw nga taxaw ci kanamu yàlla mu àtte la par kenn kenn dañuy taxawee ci kanamu yàlla loolu mooy njëriñu dekk bu ñu dekkee dañuy àtte bu ñu àttee dañuy fay ku def lu baax yàlla fay la ku def safaan yàlla fay la waaw tey nag liggéey bi fii la lañ lañ ñuy fay ëllëg liggéey bi mooy lii li nu nekkee tey mooy koor gi ñuy koor alxuraan bi ñuy tafsir julli gi ñuy julli sarax bi ñuy saraxe ak yeneen yi nga xam ne yépp xam ngeen ko mu nekk jaamu yàlla yooyu mooy liggéey bi loolu la nu sant yàlla li mu santaane nag dañ koo bàyyi nekk ñun ci suñu programme mu bopp léeg-léeg nga gis ku bàyyi programme mu yàlla nekk ci programme am te moom programme am boobu amul njëriñ àdduna amul njëriñ àllaaxira programme mu yàlla bi bu jotee fii lay bàyyi programme am bi dem gis ngeen ay footballeur ci terrain plein compétition koo xam ne bi muy dugg docteur bi daf ko xool dara dalu ko waaye bi programme mu yàlla ñëwee dafa ci biir terrain bi la waaji bàyyi wala waaji bàyyi programme am daal dem àllaaxira xam na ci benn jour bu ñu may nettali ñu ne dafa teg penalty bi arrière daal di sëgg daal di daanu dee dóorul penalty bi allahu akbar ah gars yi yàlla mooy yàlla programme am bu jotee foo mën a ne ala kulli haal di nga ko bàyyi dem ca la mu taxoon mu bind la kon ñun ñii dund am nanu am nanu am nanu sens Sufyaanu Sawri dafa ànd ak néew mbooloo mi yor néew mi ñu ànd ba armeel yi ñu gas ba mu xóot di waaj a dugal néew bi Sufyaan ne leen néew bi bu dekki woon tey lan lay def gaa yi ne laa ilaha illallah kon de dootul tardel julli kii bu dekki woon tey lépp lu ko yàlla sant dina ko def mu ne leen ndax mënati na ko gaa yi ne déedéet mu ne kon yéen ñi ko mën bu mu leen raw kon aaya yi lim nuy jàngal mooy ñu gëm ne danoo war a am tawxid mooy wujubu tawxid tawxidullahi taala bi fi ibadatihi dañoo war a kennal yàlla ci jaamu gi jaamu gi ñuy jaamu yàlla waruñu cee dugal lenn lu ci kenn moom ndax lépp yàllaa ko moom ñaareel bi mooy dañoo war a gëm dee gëm dekk gëm fay loolu mooy aaya yi ñu war a jël tey sunu borom subhanahu wa taala mu ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين في فئة في فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يدل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نسيرا sunu borom ne Allahu yàlla mooy benn turam mooy lafzul jalaal yi ci des yëpp ay sifaat la ay melokaanam la moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yàlla ñaata tur la am 99 man ahsaaha daxala aljanna ku ko mokkal dugg aljanna ah du hadis du hadis ah du hadis hadis la 99 tur mu ne ku ko mokkal dugg aljanna mbaa mokkal nañ ko pourtant ko kon bu ñu ñëwoon ku ko mokkal am 4 4 dinañ ko mokkal de jox la benn pasero wala benn limousine wala benn air plus 4 ko mokkal dañ ko mokkal de wala allahu akbar allah mooy tur bi nag mooy yàlla jalla jalaaluhu mooy ñëpp a bokk tur boobu ñëpp moom lañ koy waxee tur boobu ñëpp a ko bokk allah tubaab yi dañuy wax allah wala duñ ko wax ah anglais dañuy wax allah wala duñ ko wax séeréer yi tukulóor yi ñëpp ay wax allah baat bi ñëpp a ko bokk sunu borom subhanahu wa taala allah mooy lafzul jalal bi yeneen yi ci des sifaat la ay melokaan arrahman arrahim almalik alquddus alsalaam almumin almuhaymin alaziz aljabbar almalik yëpp dan la ay melokaan moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne taxallaqu bi axlaaqi rahman na ngeen yor jikko melokaanu yàlla yi suñu borom subhanahu wa taala allahu yàlla laa ilaha amul benn buur bu nu war a jaamu jaamu gi nekk njëriñ ñàkk a jaamu nekk lor illaa huwa kudul moom waaw loolu la tukulóori naan laa ilaha deweteeɗo ala illa huwa sowona kanko tan waaw deweteeɗo ala sowona kanko laa ilaha amul benn buur bu nu war a jaamu jaamu googu ñu koy jaamu di nekk njëriñ illaa huwa waaw baada dars incha allah bi jullee fane allahu yàlla laa ilaha amul benn buur waaw li mooy tawxid loolu nga war a fas amul kenn ku yàlla ku dul moom loolu la ko gars yi di tekkee amul kenn kuy yàlla léeg-léeg nga dégg gars yi ne la ñi lay ñi lay gëmloo yàlla yàlla dañ laan la yàlla nee na dara amul lu dul moom laa ilaha illa allah dara amul lu dul yàlla noonu lañ la koy firile nga ni waaw loo koy dëgg la wala suñ la waxee dara amul lu dul yàlla looy wax danaan waaw fekk laa ilaha illa allah firiwul loolu dara kay am na yow am nga man am na asamaan am suuf am dara am lu dul yàlla kay am na lu am kay am na li am li am du jeex yaa ngi ciy teg bët laa ilaha lu muy tekki mooy amul benn yàlla al ilah la wax al ilah mooy yàlla laa ilaha wala du loola tekki amul benn yàlla illa huwa kudul moom kan mooy yàlla mooy ku ñu war a jaamu kon ku ñu war a jaamu moo amul ku dul moom waxul dara amul moo tax dañ ñu ciy nax ndax làmmiñ ñu rëy su ko defee yow boo jàngul nag ñu tuur la lëndëm dara amul lu dul yàlla yàlla nee na maa fi nekkoon nangam nangam bi fi kenn nekkul après ma am amal nangam kon yàlla nee na dara amul fi ku dul moom kon yow yàlla nga man yàlla la soo dof dof loo ñu nax la ci wax ju bari yoo xam ne teguwul fenn mus naa dugg ci benn oto jóge Malika jëm Pikine apprenti bi di laaj paas ba ci yàgg rek ñaari waay daal di dugg ci oto bi kenn ki daal di dugg ci biir saal ba toog kenn ki daal di yem ci porte baga kii buntu oto bi jàpp apprenti bi sam waay di ko tuur wax ba apprenti bi gëlëm mënatul laaj paas taxaw rek di xool waay ci oto bi xaw a wàññeeku ay nit waa ji daal di jugu toog jàkkaarloog man di waaraate rek ci affaire yooyu ñuy wax yàlla yàlla maa ngi ne tekk rek di ko déglu parce que bëgguma yàq waxam kon dañ naan maa ko tooñ ba ci yàgg rek yàlla tarxis loo ko nag mu ne ibaadu yi xam nañ sax li may wax ma ne ko nag ku mën a fen nga nag yow li ngay wax dara amu ci dof bi kay moom a jaaxal moom mi nga xam ne topp nga di ko tuur wax ba laajul paasam yi nit ñi wàcc chauffeur bi ne ma nga ne lan ma ne ko moo ngi de ma ne ko yow yaa ngi doon wax sànq ci wasila yoroon naa kaamil bu ma def sama poos kaamil fermeture rek ma génne kaamil ma ne ko won ma ba won ma aaya bi fan la nekk ci alxuraan jox ma ko mu ne man nag jànguma alxuraan ma ne ko farega rek bi da ngay waaraat rek waa ji nekk fële ci saal bi bëgg cee dugg rek gaay na ko génn ci sa yoon nekk ci ñoom ñaar la waaye mujj gi day wallaahi waa ji dafa noppi xamatul fu mu jëm ma ne ko yow jàngu alxuraan bëgg a waaraati naan alxuraan ñeent la wala mu ne alxuraan ñeenti alxuraan la quraanan arabiyan quraanu nuur quraan kitaab bi ma ne ko nee na quraan ñeent yooyu wan ma fan lañ ko bind fii xoolal quraanan arabiyan ñoom nuñ ko tekkee ñu ne benn la quraan nu ñu ne ñaar xamuñu ne yooyu ay tur la yu yàlla tuddee alquran ndeysaan mu tax ñàkk a jàng musiba la parce que fu ñu koy jëlee mooy ci seen kasetu sëriñ yi parce que seen sëriñ yi jànguñ leen ak ñoom bu ñu dégloo kaset yi au lieu ñu dem ñu jàngi ñu dem jàng dañuy déglu kaset yi rek këru ko niñ ko waxee noonu lañ koy indee moo tax dañ leen di fët fët yu métti fu ñu dem parce que jànguñ mal asaf tey bu ñu ubbi woon bu ñu ubbi woon dëkk bi lu ñu def lu ñu def ñu laaj la ñu ñeme laa laaj lu imaam def balaa muy sëlmal ñu laaj bu sëlmalee ñu laaj kuy def conférence boo defee ba pare balaa ngay bousee ñu laaj la fekk sëriñ bi ci biir saalam fu mu toog ak taalibe yi ñu laaj ko suñ ubbi woon loolu kon yu bëri du am waaye dañoo tey boo am na saal yoo xam ne boo fa duggee boo fa bëggee laaj ñu ne kii kii kii day diingat dóor leen ko kii amul ak taalibe kii yaru wut am na benn sëriñ bu mag ci jàkka la toog ubbi jumaa ji ba pare di waxtaan ci julli ba ci àgg rek mu ne ku ma gis ku ma indil benn hadis bu wér buy wax ne yonent bi dafa julli xabdu rek ma jox la nangam rek benn waay jóg taxaw ci jumaa ji ne ko boo demee ci Muwatta Malik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal di duur hadis bi nahnu maashara al anbiya ñun yonent yëpp sunu diine mooy booy julli nga xabdu bu fekkee da ngaa ñàkk kersa nga def lu la neex di gars yi ne dóor leen ko waa ji dañ koo jàllale fenêtre keroog sinon ñu rey ko pourtant dañ sëriñ bi moo ne ku ko gis dóor leen ko waa ji buñ ko tëbalu woon fenêtre keroog gars yi rey ko ci biir jumaa ji te pourtant sëriñ bi moo wax loolu de su ngeen ku gis loolu na ma ko woon waa jóg taxaw gis loolu léegi borom xam-xam yi naan al isnaadu min ad-diin lawla zalika la qaala man sha ma sha laaj dalil dafa bokk ci diini sunu loolu bunt bi day ubbeeku ku nekk di wax lu la neex allahu yàlla laa ilaha amul benn yàlla bu ñu war a jaamu jaamu googu di jur njëriñ ñàkk jaamu googu di jur lor illaa huwa kudul moom kenn amul keneen gaañi jaamu yàllaa ko moom keneen amu ci moo tax yàlla bu ne jaamu leen ma ku bàyyi jaamu gi jël jaamu gi jox ko keneen bokkaale nga ndax da ngaa jël li yàlla moom jox keneen li yàlla moom yàlla rek ko moom kenn waru ko jox sax yonent bi li yonent bi moom moom donga ko moom kenn waru ko jox keneen anzilu naasa manazilahum nit ñi nañ leen wàcce ku nekk sa wàccuwaay waaw yàlla buggul ku ko dendale kenn ndax moom kenn mooy yàlla mu ne moom yàlla moom la yajma'annakum dana leen dajale giñ naa ne danaa leen dajale laam bi laamul qasam la nuun bi nuunu tawkiid la yajma'annakum giñ naa ne danaa leen boole yéen ñëpp ila yawmil qiyaamati jëma leen yawmal qiyaam kenn ci yéen dure ci yéen ñëpp laay dajale ci suuf suñ naan ardul mahshara keroog bu yàlla naan yawma yuxrajuuna min al ajdaasi siraan kaannahum ila nusubin yufiduun xaasiatan absaaruhum tarhaquhum zilla waqad kaanu yudawna ila sujud gis na keroog yowmal xiyaam benn malaaka mooy taxaw rek ci ufuq bi loolu ngeen naan horizon daan ne yéen yax yu fënëx yi kawar yu tasaaroo yi yàpp yu ñoppatiku yi jóg leen ku nekk fi nga nekkoon sa biir bàmmeel nga daal di génn taxaw amul sax yéex waaw allahu akbar ñëpp dajaloo googu yàlla di wax ñëpp ay génn ee yéen yax yu fënax yi la malaaka bi di wax ee yéen kawar yu tasaaroo yi yàpp yu ñoppatiku yi jóg leen nga gis gaay bu ñu génnee ci biir bàmmeel lu ñu wax man baasana min marqadina haza woy kan moo nu yee kan moo nu dekkil kan moo nu dekkil ñi am xam-xam daan ne haza yowmul baas tey mooy bisu dekki tey mooy bis bi yàlla waxoon ne ñëppay dekki bu nit ñi dekkee luy am luy xew jinne yi ñooy ñëw wër doomu aadama yi wëraat est-ce que xam ngeen ne jinne yéen ëpp xam ngeen lool xam ngeen jinne yëpp nit ñi wala xam leen ko jinne yi ñoo ëpp nit ñi jinne yi ñoo ëpp nit ñi ñoo ëpp nit ñi doole ñoo gën a gudd fan nit ñi xam ngeen loolu wala jinne day dund junni at wala lu ko ëpp am na benn téere bu tudd xiwaaru saxafi ma jinnul muslim jalab bu am benn jinne jinne bi daa tuub mu ngi tudd Moustapha Kanjuur jinne bi nee na gis na Iblis ñaari yoon benn bi fekk mi ngi nekk liir mi ngi am téeméeri at ak juróom fukk maamam yóbbu ko ci Iblis na ko Iblis ñaanal te boobu liir la téeméeri at ak juróom fukk laam jinne bi doon ànd ak yonent bi ba léegi mu ngi dund mu ngi tudd Habibil Haadi mi ngi bàmmeelu baxiya di jàngal jinne yu tuub sahihul buxaari ak sahihul muslim gis ngeen kon jinne dañuy gudd fan yusuf alayhi salaam biñ ko sànnee ci teen bi dafa fekk benn jinne ci biir teen bi jinne bi def naa jinne bi ne ko xam nga lu tax ma ñëw ci teen bi toog di la xaar mu ne ko déedéet mu ne ko damaa mës a dégg sa xissa ñu koy nettali xissa bi neex ma ma laajte ñu ne ma yow yow yow yaay Yuusuf bi ma laajtee ñu ne dañ lay sànni ci teen ma laajte teen bi fu mu nekk ma xam ko mu ne ma bàyyi li ma doon def yëpp ñëw dugg ci teen bi di la xaar boobaag léegi yow Yusuf xam nga ñaata at la mu ne ko déedéet mu ne ko juróom-ñeent fukki junni at mu toog fii ci biir teen bi di la xaar du nga ñëw moo tax bi Yusuf ne cëpp ci biir teen bi affaire bi ne bëm daal di wàcc mu ne ko laa shakk anta Yusuf laa shakk anta Yusuf sikk nekku ci ne yow yaay Yusuf kon jinne day dund mbokk yi at yu bari jinne yi ñooy ñëw wër doomu aadama yi ñaari yoon malaaka yi ñëw wër waraat waraat maanaam malaaka yi ñoo ëpp jinne yi jinne yi ëpp nit ñi foofu nag la yàlla naan haza yawmul fasli jamaanaakum wal awwalin fa in kaana lakum kaydun tey mooy bis bi ñuy séparé dëgg ak fen dajale naa leen yàlla la ñu wax fi léegi la yajmaannakum dinaa leen dajale mu ne jamaanaakum wal awwalin dajale naa leen tey ak ñu njëkk ña aadama ba ki mujjee dee ci yéen dajale naa leen tey ja dajale naa leen yéen wal awwalin ak ñu njëkk ña aca ku mun a daw dawal ndeysaan kenn amul foo jëm kon loolu ngeen dégg ñu naan mooy bisu daja ba yàlla day dajale nit ñi mbokk yi day dajale mbindeef yi ci suuf su tudd ardul mahshara kenn du manqué waaw loolu ngeen dégg ñu naan bisu taxawaay bi danañ taxaw ñaataat ah cinquante mille ans allahu akbar danañ taxaw taxawaay bu yàgg mbokk yi ci kanamu yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu lenn ci borom xam-xam yi nee nañ yàlla day wàcce jant bi sahaaba bi doon nettali hadis bi mu ne mille kenn xamul mille ans la kenn xamul millimètre la kenn xamul mille mètre la jant bi tiim nu mu ne raj-raj loo bi dina bëri ba nga gis benn tànk mooy taxaw yenn saa yi nga gis ku ñu kepp ba du am fu mu taxaw tànkam du laal suuf yenn saa yi nga gis koo xam ne benn tànk la taxawee ndax mbooloo mu bari ñi nekk géejawaay yi bu leen bëgguloon dugal ci jàkka ji ñoom ñëpp kon ñi nekk jàkka ji ni ñuy def ndax xeej nañ fi yowmal xiyaam yàlla ñi nekk ci àdduna bi yëpp waxuma ñi dee ñi de ñi doon dund rek bu doon yàlla dajale woon rek problème la waxuma laak nag mu ne jamaanaakum wal awwaliin yéen ak ñu njëkk ña ñëpp ci benn terrain allahu akbar moo tax yàlla giñ ne la yajmaannakum danaa leen dajale haza yowmul jam laa rayba fii tey mooy bisu daje sikk rékku ci kon nañ leen xam ne yàlla dana dajale ni ñu yàlla dajale fii ci àdduna ñuy dund noonu la ñu yàlla di dajale ëllëg alaaxira bu fekkee dañ doon def lu baax mu fay nu bu doon def lu bon mu fay ñu ila yawmil qiyaama mu ne loolu laa rayba fii déet benn xeetu sikki sàkka di ci nekk waru leen am sikki sàkka ne dinaa leen dajale yàllaa ne woon dina nu bind ah yàllaa waxoon dina nu bind bind nanu wala bind nu bind nanu yàlla ne dinaa leen dundal dundal nanu wala dundalunu mu ne dinaa leen rey rey nañu wala reynu mu ne dinaa leen dekkil kon ñu war koo gëm naa leen dajale ñu war koo gëm waaw kon loolu kenn waru ci am sikki sàkka ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana leen dajale yàlla nee na dinaa leen dajale ba seen baaraam yi loxo yi sax danaa ko dajale hal ata wala laa uqsimu la laa uqsimu bi yowmil qiyaama wala uqsimu bi nafsin lawaama أيحسب الإنسان أن لن نجمع بلى قادرين على أن نسوي بنانا أيحسب الإنسان ndax doomu aadama dafa yaakaar أن لن نجمع إزاما ay yaxam bu ma ko suulee ba mu fënax ba nëpp ba yaxi tasaaroo léeg-léeg nga dem ci armée li ñuy suul nit kii gas na kat génne génne benn yax yax bi fënax ñuul kukk ñu ne eh eh fii kër la kër la kër la ñu daal di gàdduwaat yax bi gasaat dugalaat suul ñee nañ bàyyi fii dafa am ku fi tëdd soo ñàkkee xel wala amoo xam-xam nga ni kii yax bi fënax bu ñuul bii naka la ko yàlla di defaraatee boroomam mu taxawaat nekk déet waaye loolu lu yomb yàlla la waaye yaxsabul insaan ndax doomu aadama dafa yaakaar alla najma isaama dootuma dajalewaat ay yaxam ginnaaw ba yax yi fënaxee ginnaaw ba yaxi ràppee walla mu ne bala aha kay qaadirin ala an nusawiya waxuma yax yi waaye banaana yax yi moo gën a tuuti ci yaramu doomu aadama yax yi lii yax yi ndaw yi fii nii ay daggiti daggit la yàlla ne dinaa ko dajale ba tolle la waat yax yi loolu moo tax boroom xam-xam yi yi génne léegi xam-xamu lan empreinte ah yi ñuy yi ñuy taf ci kii passeport yeeg lan casier judiciaire yeeg carte d'identité yi ñu ne loolu la yàlla jublu woon xoolal yàlla ne ayax fii ba baat yi lii kenn nuróowu la ko ci àdduna bi yàlla ne naa dajale waat loolu sax dana ñëw est-ce que xam ngeen lii kenn nuróowu ko ci àdduna bi allahu akbar moo tax yàlla léppam xam-xam la lii kañ lañ xam ne doomu aadama yëpp bokkale wuñ ko kañ lañ ko xam ba fuñ la woo police wala woo la fenn rek ñu ne la bismillah tegal fii sa loxo nga teg ñu ne acca teg ko fii pour ñu xam ne yow la foo nekk suñu xasee jël loolu foo nekk yow xam nañ la jeex na mënatoo rëcc xam nañ yaay kan ba àddina bi di jeex xam na ne yow la amul keneen normalement papa ak doom kay dëgg-dëgg war nañu sax yenn saa yi jaxasoo nurule ko wala doom ci kan la génnee léeg-léeg nga gis kenn ci ñun ñi toog fii nga gis doomam doo laajte doo laajte tax doo laajte da ngay xam ne kii kii mooy papaam ay moog doom ji ñoo nuroo wallahi alazim jóge naa géejawaay jëm parcelle di wëri góor goo xam ne dañoo war a maye doomam yaa dama doon jàngal xale bi waa xale bi xëy nekk mag nekk jànq moog yaay moog papam dañoo taxalikoo lu ëpp fanweeri at xale yu jigéen yi duñ dem ci seen pap papa yi da leen a bàyyi dañoo maanaam daal diggante bu doy waar man xawma ci woon loolu xale bi jàng na ba nekk journaliste mu ngi woon ci benn seen ci seeni télévision yi di muuru benn journaliste gis ko bu nekk ci benn rajo bu ko takk maire bi woo ma ne ma yow yaa koy maye yaay baayam ndax yaa ko doon jàngal ah ma ne ko ana papam mu ne ma pa bu laaj loolu histoire bu yàgg la ma ne ko noono laaju ma ndax histoire bi damay laaj ndax mu ngi dund wala dundul mu ne ma mu ngi dund ma ne ko moo ko war a maye mu ne ma te moom rek moo ko mën a maye ma ne ko waaw wala ku mu jox ndigal su dul loolu man duma ko mën a maye mu ne ma ah kon de sëy bi du am ndax man fas yéene wu ma bàyyi ji maye ko ndax ba mu leen juree jur la ci am daf leen a sànni baan abandonné leen maa ci def lépp bañ toll nii ma ne ko léegi fu mu dëkk mu ne ma mu ngi dëkk parcelle fan mu ne ma wetu stade stade bi tuddati amitié Léopold Sédar Senghor tegtal ma tegtal ma ba alhamdulilah ma jàpp ne war naa mën a dem xam kër gi ma dugg oto wàcc nekk ci tali bi di jëm kër gi ñu ma tegtal ma dajeeg paa bi dama ko gis rek ñëw daal di koy nuyu ne ko asalaamaaleykum mu ne waaleykum salaam ma wax santam waaye santu xale bu jigéen bi léegi mu ne ma ah yow de gañe nga ma c'est parce que ñoom ñaar benn lañ benn lañ moo xale bu jigéen bi dama ñëw rek jàpp ci loxo bi nuyu ko wax ko sant bi mu ne ma gañe nga ma de ana waa ndar ma ne ko jógewu ma ndar de ana foo jógee ma ne ko géej waay ah yow foo ma xamee ma ne ko dafa am sama benn jigéen bu tudd nangam rek mu ne i allahu akbar mu ne ma nañ dem kër ga ñu dem ma wax ko affaire bi mu ne ma teg naa ko sa loxo foofu mënatuma faa dem mais teg naa ko sa loxo soo demee nga mayee ko loolu laa mayee xale bu jigéen boobu pour wax leen ne nit ñi dina nuroo waaye xoolal fii du nuroo mukk baaraam yi du nuroo mukk te pourtant da ngay jur nit nga nuroo moom ba ba wala nga gis ñaari seex ci biir ñu ñoom ñaar ñu génn ñoom ñaar nuroo ba kenn dina seen papa ak seen yaay sax dañ leen di jaxase waaye duñ bokk lii de jamais duñ ko bokk te ñoo bokk fu ñu génnee ñoom ñaar gars yi lingom ak lingom lu ñuy saf lingom ak lingom lu ñuy saf ah mango ak mango lu ñuy saf kaane ak kaani jaxatu bi ci tool bi lañ ko wittee jaxatu bi ñu wittee ko ci biir tool bi ñoom ñaar lu ñuy saf waaye xool ñaari nit lu ñu nuroo nuroo duñ bokk lii loolu yàlla moo ko def subhanahu wa taala loolu borom waxo bi ne aaya bi yàlla yarhamukallah ayaxsabu l insan an lan najma izama bala qadirina ala an nusawiya banana nekke loolu la yàlla di wax allahu akbar kon yàlla dana dajale mbokk yi sikk nekku ci yowmal qiyaam loolu amul sikki sàkk su yeboo kuy jullit conscience am daal ci tranquille daal ci dal xam ne ëllëg yowmal xiyaam suñ ko su deewee yàlla dina ko gi dekkil yàlla dina ko dajale mbokk yi ndax yàlla su yemoon fii war na doy wala doyul bu yàlla yemoon ci aaya bi rek daan ne la yajma'annakum ila yawmi alqiyamati la rayba fii loolu doyoon na wala doy ah mu ne wa man asdaqu min allahi hadisa kan moo gën a dëggu yàlla waxtaan kan la kan moo gën a dëggu yàlla ci ay waxam ndax am na ku gën a dëggu yàlla subhanallah la ilaha illa ant amul kenn mbokk yi wa man asdaq kan moo gën a dëggu min allahi ci yàlla da ngeen ko gis ci kaw suuf da ngeen koo gis mbindeef muy dund mu dee mu gàtt mu njool mu xees mu ñuul mu xam mu ñàkk xam mu am mu ñàkk moo gën a dëggu yàlla ndax am na tontu bi mooy déedéet doo ko gis doo ko dégg amul sunu borom subhanahu wa taala jalla jalaaluhu wa azakamaluhu allahumma innahu la ahad asdaqu mink yow yàlla amul kenn kenn kenn ku la gën a dëggu ci say wax ak ci say jëf mbokk jullit yi sunu borom subhanahu wa taala mooy ki dëggu li mu wax rek am ba mu ko waxee ba léegi looloo yem waaw programme am dara changé wu ci moo tax ku yebo gëm loolu ku yebo gëm ne yàlla ay waxam a dëggu bind nanu dundal nanu dana nu rey dana nu suul dana nu dekkil dana nu daje dajale nu nun ñëpp dana nu fay kon loolu waruñ ci am sikki sàkk waruñ ci am ay déngi déngi ak di xalaat est-ce que loolu mun naa nekk xëy na yàlla waaw bu ko waxee bu yàgg la woon xëy na léegi boobu ba léegi amatul doole jooju ah léegi ñun ay ngand lañ ah wala ñun ñëpp li abu jahlin waxoon ba mu déggee yàlla di wax safara 19 malaaka ñoo fa nekk alayha tisata asar wa ma jaalna ashaba annar illa malaika mu ne 19 non mu daal di woowaa màkk mu ne yàlla nee na 19 la mu ne man damay xeex ak kat waaw mu ne acca ñoom diw jël jël kii mu ne ngeen jël ngeen jël mu séddale ko mu ne xam ngeen man ngand la su ma xeexee 15 yi xanaa yéen di ngeen mën a séddoo 3 yi des ah laa ilaha illallah boobu xamuñu malaaka mooy lan boobu dañoo xamul lan mooy malaayika yàlla am na malaayika yoo xam ne xeejuñu ci kaw suuf si xeejuñu fi xeejuñu fi laa wax am na malaaka boo xam ne yàlla bi mu ko ne wàccal ci kaw suuf benn tànk bi la wàcce mënul mënul mënu fi tegu benn tànk benn tànk mu ne yàlla xeeju ma foofu yàlla mu ne ko duggal ci pax mee malaaka bi ne fin daal di dugg def fa ay at yàlla génne ko ne ko xam nga fi nga duggoon mu ne déedéet mu ne ko ci paxu bakkanu malaaka nga duggoon benn malaaka ci paxu bakkanam nga duggoon rugoo ci ñaari pax yi de ci benn pax bi nga duggoon kon malaaka boobu ñu duggoon ci pax bakkanam su wàccoon suuf fu suuf si jëm allahu akbar ak gisu leen jibril ay laafam lay lay sampe suuf si yóbbu ko ci kaw asamaan ah kon malaaka yi nuñ tool kon malaaka nuñ tool su doomu aadama waxee day xeex ak malaaka boobu fu doomu aadama jëm doomu aadama amul doole amul kàttan ci kanamu malaayika malaaka yi dañoo am doole parce que yàlla moo leen ko def yàlla moo leen defal seen kàttan yàlla xee def leen ay ay ay mbooloo ay groupe yi groupe ñii safara lañ nekk ñu ngi tudd zabaniya 19 lañ yàlla ngi leen tuddee zabaniya ñooy mbugal nitu safara yi kan moo leen jiite ku tudd Malik ñii ñi nga aljanna ku leen jiite Ridwan moo yor caabi ci ñii ñoo yor taw ñii ñoo yor ngelaw li ñii ñoo yor wax yu ñii ñoom ñooy rayaate malakal mawti moo leen jiite ñii ñooy garde doomu aadama hafaza kiraman katibin ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid noonu la yàlla bindee malaaka yi am na ci ñoo xam ne yàlla def na benn néeg bu tudd baytul maamuur baytul maamuur moo kaaba gi ñoo jàkkaarloo kaw asamaan ni nit ñi di ajee kaaba gi noonu la malaaka yi di ajee néeg boobu tudd baytul maamuur waxuma baytul maamuur bi nekk Sénégal de xam ngeen Sénégal am nañ baytul maamuur mu ngi corniche weextal jumaa ji ku sol lu ñuul doo fa dugg ah gisu leen ko man de gis naa ko dem naa ba foofu ah yow yaa ko wax de boor bi daal la nekk ci wetu géej gi weex taal vague gu géej gi di ko laal nga ni foofu mu nekk nu mu tudd waaw place bi ah kon dégg ngeen mu ngi foofu nee nañ jàkka jooju jibril moo koy indi fu ñu tabax ko foofu naa leen Sénégal moom nit ñu yabe Jibril ak Adama ak ñoo leen a yab dañ leen dessiné ci ay photo Jibril naaw fi yenu ay juma naaw fi yore ay leer ay Sénégal ñoo yab Jibril ak Adama ñoom dañoo yaakaar ne Jibril seen maam la ak Adama di ko dessiné wala gisuleen dessin yi gisoon Jibril mu naaw am ay laaf yor lettre am na fu mu naaw yor benn jàkk ah gisuleen ko man de gis naa photo yi wax dëgg yàlla est-ce que kooku mooy Jibril Jibril lu mu wut Sénégal oh là là oh là là ndeysaan dañu xam ne kon mbokk jullit yi li yàlla wax rek mooy dëgg bu nu sonal suñu bopp yàlla nee na wa man asdaqu ana kan moo gën a dëggu min allahi ci yàlla hadisan wax allahu akbar ndax gis ngeen ko bu ngeen ko gis sonal bu leen noppal bu leen sonal seen bopp noppalu leen amul fama lakum aaya yi di wàcc aaya yi nekk sunu kanam muy deuxième aaya bi mu ne qad nazalat aaya yi wàcc nañ li sababin muayyanin ci benn mbir mu ñu xam wa tu'aaliju masaa'ilil harbiya muayyana ay nekk sunu kanam wàcc nañ ci benn situation bu ñu xam di régler situation boobu nee na bu fekkee sababu nuzul bi la fa huwa ixtilaafun nee na am na wuute diggante boroom xam-xam yi ixtilaaful muminin wuute wuute way gëm yàlla yi jullit yi ñoo wuute woon min ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam du du boroom xam-xam yee wuute woon waaye ñan ñoo wuute woon sahaaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo wuute woon lan moo indi woon seen wuute ñoom sahaaba yi ci mbirum naafiq yi fi taifa min al munafiqin azharul islam ci benn mbooloo benn kuréel boo xam ne ay naafiq lañ dañoo feeñal lislaam wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad muhammad rasulullah waaye kat dañoo dem farak yéeféer yi dañoo farak quraysh dañoo farak yéeféer yi bàyyi jullit te ñoom kat nee nañ ay jullit lañ nee na waqat yakunu fi makka mën naa nekk ca makka nag li ñuy wax nii mën naa nekk makka nee na gars yi ba ñu wuutee nee na mën naa nekk makka mën naa nekk madina waqat yakunu fi makka waqat yakunu fil madina ba ñu wuutee ci mbiru ñooñu faraa baadu asaab anna min alxasbi addarb fi aydihim wa inhaai nifaaqu nifaaqihim yenn saxaaba yi gis ne yonent gis nga ñii danoo war a gàddu sunuy jaasi rey leen dóor seeni loxo jeexal seen naafiq gi parce que li ñu wax du dëgg duñu ay jullit naka la nit dina xëy man jullit laa dem farak ay yéeféer benn kuréel bi saaba yi daal di wax loolu mu ne wara a axaruun tarkuhum wa sabri alayhim ma daamu yaduuna al iman laallahum yamurrun ayaam yatuubuun beneen mbooloo mi ne déedéet buñ leen def noonu ndax ñi ay jullit lañ feeñal nañ ngëm yàlla ñoo ngi julli ñoo ngi woor nañ leen bàyyi rek nañu muñ nañu muñ rek bàyyi leen amaana ñoom bu ay fan danañ tuub daal di dellusiwaat léegi nag ci lii la ñaari kuréel yi daal di wuute ñi gis ne dañ leen war a rey ndax seen naafiq jeex ñii gis ne dañoo war a muñ bàyyi leen ci lañ nekk ñu daal di wuute nag falamma ixtalafu ba ñu wuutee ci mbiru naafiq yooyu wastaddal xilaaf ba wuute gi tar commencé indi seen biir problème fi sha'nihim ci seen mbir anzala allahu taala hadihi al aya yàlla daal di wàcc aaya yi aaya yi mooy lan fama lakum fi lmunafiqina fi'atayni wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla allah wa man yudlillah falan tajida lahu sabila oo yéen lan moo leen dal fama lakum lu leen jot yéen way gëm yàlla yi yéen ñaari mbooloo yi wuute ñi naan nañ leen rey ndax naa fekk jeex ñi naan nañu muñ xëy nañu tuub yéen ñaari kuréel yooyu lu leen dal fil munafiqina ci naafeq yi fi tey ni ñaari mbooloo wallahu arkasahum bima kasabu yàlla moo leen delloo ca naafeq ga ndax la ñu fàggu ci ay jëf yu bon ndeke ñii nekk ay jullit ba pare nekk ay naafiq lan moo leen delloo ca naafiq gi wallahu arkasahum yàlla leen ci delloo lu tax yàlla delloo leen ci ndax seeni jëf ndax dañoo nekk ay jullit di fàggu ay bakkaar di nëbb kufr di def mbon yàlla def leen ay naafiq na leen ci yàlla musal allahu akbar nee na wa maana al aya ay sayin sayyarakum fi saani almunafiqin yéen ñaari mbooloo yi wuute lan moo leen wuutale ci mbiru naafiq yi ñaari kuréel fiatayni allahu taala qad arkasahum fi lkufri bi sababi ma kasabu yàllaa leen delloo ci naafiq ndax lan lañu fàggu ci ay bakkaar min az-zunubi al-izam ci ay bakkaar yu rëy rëy rëy rëy rëy moo tax nekk jullit dem far ak yéeféer musiba la loolu tey gis ngeen ko ci am ay jullit yu ko def wala gisu leen ko ah du jeex ay jullit ñi allié ak ay yéeféer yenn saa yi sax nga gis kuy tiitaroo sama xaritu yéeféer bi sama xarit la Sénégal moom am fi xarit nu mu yombee man ak yow gis nañ ñu ànd rek daje nañ na nga def yaa ngi fi rek yow da ngay ñëw jàkk ci tafsir ñu ne waaw ne kii sama xarit la fekk tey laa ko mos a gis yàlla subhanahu wa taala mu ne aturiduuna ndax da ngeen a bëgg ayyuhal muslimuuna yéen jullit ñi an tahdu ngeen jubal man adallallah ku yàlla sànk ku yàlla réeral yéen ngeen bëgg ko jubal ñii yàllaa leen réeral yàllaa leen bàyyi ci seen naafiq gii ñu nekk ñu nekk ci islaam di tuddoo islaam nëbbëg naafiq ci seen xol di farak ay yéeféer di génne information di leen jox di xeex jullit yi yàlla subhanahu wa taala mooy ki def loolu waaw wallahu yàlla arkasahum moo leen delloo bima kasabu gis ngeen moo tax fokk ñu góor góor lu mbokk jullit yi al irtikaas mooy ataxawul min xaalin xasan ila xaali sëy kal kufru baada al iman aw al gadri baada al aman wa huwa al muradu huna baatu arkasahum li muy teg mooy yàlla moo leen wëlbati yàlla moo leen changé yàlla moo leen jële ci situation yóbbu leen ci situation yàlla moo leen jële ci lu baax yóbbu leen ci lu bon yàllaa leen jële ci ngëm yóbbu leen ci kéeféer kéeféerug naafiq ginnaaw ba ñu gëmee yàlla moo leen jële ci kóolute yóbbu leen ci war ñu war jullit ñi te loolu la ñu namm fii li ñu namm ci aaya bi mooy yàlla wallahu arkasahum yàllaa leen delloo jële leen ci amaan ci kóolute yóbbu leen ci naafiq ñuy naafiq yu leer yu wóor yonent bi alayhi salaatu wasalaam xam leen yàlla wax ko seen tur yi ñoom ñépp mu daal di wax huzayfatul yamaani ne ko ñii ñooy naafiq yi waaw borom xam-xam yi nee nañ waa muhaajirun amul naafiq naafiq yëpp ñu nga dëkkoon ansaar mooy waa ansaar lu tax ndax waa màkka ba yonent bi wootee ñëw nañ ba mu nee nañ gàddaay gàddaay nañ ba mu nee nañ xeex xeex nañ ba yonent bi génnee topp nañ ko bàyyi seeni kër bàyyi seeni jabar bàyyi seeni tool bàyyi seeni commerce bàyyi seeni lépp topp yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax yàlla ba muy wax naafiq lan la wax wa min al madinati maradu ala nifaaq la taalamuhum wallahu yaalamuhum ah ndeysaan wa min xawli almadinati li wër madina yàlla neen ay naafiq ñoo fi nekk maradu ala nifaaq dañoo feebar ci naafiq yow yonent bi xamoo leen waaye yàlla xam na leen bal sax yàlla da cee wàcce saar muy suratul munafiq munafiquun ida jaaka almunafiquun qaalu nashhadu innaka rasulullah wallahu yalamu innaka la rasulu wallahu yashhadu inna almunafiqin la kazibuun lu tax ittaxasu aymanahum junna fasaddu an sabilillah innahum saa ma kaanu yacmaluun zalika bi annahum zalika bi annahum zalika bi annahum boy amanu summa kafaru fa tubi ala qulubihim fahum la yafqahun yàlla ne wa iza ra'aytahum tujibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim kaannahum lii yëpp melokaanu naafiq la lii yàlla di wax ci saaru yëpp melokaan yi la laa ilaha illa allah yal na yàlla musal bu ñëwee ci yonent na ko ñun de gëm nañu yàlla ñu ngi seede na yow yonent nga yàlla la yónni yàlla mu ne man xam naa loolu man yàlla maa la yónni waaye naafiq yi dañuy fen lan la ñuy def seen waat yi ñuy waat ittaxasu aymanahum junna waat yi ñuy waat naan billaahi gis nga wallaahi doo xam nga lu ñu ko defee junna ay barrière lañ ko def pour yéen du ngeen mën a am accès ci ñoom pour détruire leen ndeysaan waaye fa saddu an sabilillah dañuy baare yoonu yàlla bëgguñu diine avancé te nee na ñu ngi ci diine ji mais bëgguñu diine ji avancé allahu akbar suñu borom ne naafiq yi même buñ demee bay wax ci seeni terme wax rek ngay xam ne ñi ay naafiq lañ ak yeneeni melokaanu yàlla wax ci saar bi wàccee ci ñoom saar di di leen leeral mbokk yi naafiq baaxul naafiq nag ñaari façon la an nifaaqu nawaan naafiq ñaar la naw un yuxriju min al milla benn bi day génne nit ci islaam benn bi du la génne ci lislaam waaye da lay sëf ay bàkkaar ba nga fees kon jar naa xam naafiq dafa sew sew na trop sew na trop trop trop trop loolu moo tax kenn ku nekk ci ñun war a xeex ak boppam balaa mu ci am benn melokaan borom bi nee na naafiq yi wa izaa ra'aytahum tu'jibuka ajsaamum boo leen gisee seen yaram yi da ngay yéemu seen melokaan yi ñu mel ci rafetaay yeeg sikkim yeeg kaala yeeg tube yeeg yëre yeeg kàddu yeeg leeraay geeg allahu akbar soo leen gisee da nga yaakaar ne ay imaamu màkka lañ izaa ra'aytahum tu'jibuka dana la yéem ajsaamuhum seeni jëmm waaye wa in yaqulu ay bu ñu waxee nga xam ñii la nag gaa yaa ngi nii tasma li qawlihim ka annahum xusubum musannada ñoom sax seen bopp xam nañ ne amuñu confiance yaxsabuna kullu sayhatin alayhim saa yi ñu rombe yaakaar nañ ne nit ñi ci ñoom lañ nekk ñaar ñeer ñu ngi toog xam naa ne ci mën lañ nekk ñu fu ñu romb du ñu am confiance mi ngi mel ne ku sàcc rek bu nee rek mu ne waaw yàlla nee na humul addu de noonu yaa ngoog ñu ngoog de ñooy noon yi loolu mooy seen xàmmekaay fahzarhum mooy tandiku leen yow muhammad qaatalahumullahu anna yufakun yàlla alag na leen fu ñu mën a nekk dañuy alku yàlla ngi joxe ci beneen aaya mandargay naafiq yi yàlla mu ne muzabzabina bayna zalik wa ida qaamu ila salaati qaamu kusaala ah suñu jógee di julli dañuy tayal naafiq suy julli day tayal yurauna naas dañuy ngis talu wala yazkuruna allah illa qalil du ñu tudd yàlla lu dul néew su mbooloo mi toogee ñu ne nañ tudd yàlla rek ñu ne nañ tudd yàlla su mbooloo mi toogee ñu ne nañ julli ñu ne nañ julli duñu julli mukk seen kër yi du ñu naafila foofu mukk duñu fa def azkar mukk buñ ñëwee ci jàkka ñi nag di sonal nit ñi di wane ne ñoo gën a neex baat ak ñoom ñoo dàq azkar ak gis ngeen mbirum naafiq dafa doy waar waaw mun delloo seen kër yi duñ julli duñ fa zikr duñ fa jàng alxuraan duñ fa def dara buñ ñëwee ci kanam mbooloo mi nag di sonal nit ñi waaw ku julli toog sonn sax ñu ne looy sonn yow amoo imaan tugal di tar di tar tar lu fekk gëmuñu dërëm suñu borom moo moo suñu borom moo xam allahu akbar yal leen yàlla musal yàlla nee na naafeq yi ñoom ñooy xóoñu safara xam ngeen xóoñ xóoñ mooy lan innal munafiqin fi darakil asfal min al naar yàlla nee na naafeq yi ñooy kàccoor yi wa innal munafiqina humul fasiqun naafeq yi ñooy kàccoor yi moo tax yàlla subhanahu wa taala wax fii seeni mbir leeral ko pour ñun jullit yi ñu mën koo moytu seen pas-pas balaa ñu ciy dugg borom bi ne waaw yéen aturiduna ndax da ngeen a bëgg yéen jullit yi yéen way gëm yàlla yi an tahdu ngeen jubal man adallallah ku yàlla sànq yéen da ngeen ko bëgg a jubal coow ñëw na soo fekkee ku yàlla réeral nga bëgg ko jubal am nga problème moo tax yonente bi ci xutba xutbaam bi nga xam ne moom la daan xutba mooy xutbatul haaja nga xam ne yonente bi bu daan wax lépp ci xutbaam yi moom lay wax bokk na ci su waxee inna alhamdulillah sant yàlla indi aaya yi lan lay wax man yahdihillah fala mudilla la ku yàlla jubal kenn mënu koo dëngal waaye wa man yudlil ku yàlla sànk falan tajid lahu waliyan murshida wallahi doo am ku ko orienté ba mu jub ku yàlla dëngal mbokk yi kenn mënu ci moom dara dañuy sonn rek moo tax borom xam-xam di joxe misaal ci ñaari Muusa yi ñu ne izal mar'u lam yuxlaq sa'idan faqad xaaba man rabbaahu wa xaaba al mu'limu fa Muusa allazi rabbaahu jibril kaafir fa Muusa allazi rabbaahu fir'awna mursalu ñu ne yàlla bu bindee nit ca alamul arwaax ca azal ne kii day alku ku yaakaar ci moom perte nga ku ko yar perte nga bu yàlla ne kii day alku ku ko yar perte nga ki ko jur perte na ku yaakaar ci moom perte nga ñu ne Moussa bi nga xam ne Jibril moo ko yar dafa nekk yéeféer Moussa bi nga xam ne Firawna moo ko yar mu nekk yonent bu yàlla yónni ñoom ñaar kan moo war a nekk yonent ah ki Jibril yar lu tax koo ko war a nekk yonent wala Jibril ni mu toll ci yàlla yar nit mu nekk yéeféer allahu akbar kon ku yàlla jubal mbokk yi wallahi kenn mënul ci moom dërëm waaye ku yàlla seetaan ba nga sànku wallahi kenn mënu laa indiwaat léeg-léeg nga gis ci doomu aadama yi ay nit ñoo xam da nga leen di jàpp di leen waara ba nga yaakaar na ñi suba ñu normal suba nga gisaat ñu ne nii gën a dëng yoon yi dëng kenn mënul leen dara ku yàlla seetaan ba nga sànku kenn mënul ci moom dara moo tax yonent bi ba mu toppee maamam Abu Taalib bu ko jubal di wax di wax di wax ba Abu Taalib génn àdduna mu bëgg a ñaan yàlla la la ko yàlla wax alla yàlla wax yonent bi ba mu bëggee ñaanal Abu Taalib yàlla ne ko innaka eh sama copain ñëw na innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha ey yow yonent bi xanaa xamoo doo jubal ku la neex yàllaay jubal waaw xaaral ma tafsir ba pare doo jubal ku la neex man yàlla maay jubalaati innaka yow muhammad laa tahdi doo jubal man ahbabta koo bëgg a jubal déedéet walakin waaye allahu yàlla yahdi mooy jubal man yashaaw ko soob waaye yàlla na yàlla jubal waay yàlla bu nu yàlla seetaan yàlla na yàlla teg ci siraatal mustaqim yàlla na yàlla taxaw jàppale nu ci lu feeñ ak lu nëbb waaw ndeysaan allahu akbar imam ah da nga koy jox te yaa may remplace jërëjëf waay waaw imam kon ndogu baa ngoog te imam yaa ngi woor waaw kon alhamdulilah aturiduuna ndax da ngeen a namm yàlla nuy laaj de ndax da ngeen a bëgg an tahdu ngeen jubal man adalla allah ku yàlla sànq ndeysaan ma danay jàng histoire yonent yàlla nu doomam sànq jabaram sànq xanaa nu mënul daawa mën na wala mënul yàlla sànq waa këram mënu ci dara nga jàng histoire luut jabaram sànq dafa mënul daawa mën na waaye yàlla seetaan njabootam sànk dara la ci mënul waaw yéen nag bu ngeen bëggee jubal ku yàlla sànk da ngeen di am problème mu ne wa man yudilillah képp ku yàlla sànk falan tajid lahu sabil munoo am munoo ko amal yoon boo ko jubal allahu akbar képp ku yàlla sànk kenn mënta fexe ba waajoo ju jub tout à parce que yàlla moo ko dëngal ca azal la ko yàlla dëngalee yenn saa yi nga dégg olof yi ne weñ gaa nga bañe ca mbaña xaan nga weñ gaa nga bañe ca mbaña xaan nga loolooy lan mooy weñ baa nga dënge ca commencement ba kenn mënul ci moom dërëm su nit juddoo dëng nag ba yowmal xiyaamati yàlla nammul ci moom njub du jub ba yowmal xiyaama koy dëng allahu akbar moo tax ñii ñu war a ñaan yàlla nu yàlla jubal ku toll na yonent yàlla muhammad yàlla ne ko mënoo jubalaat mënoo jubal ku la neex man yàlla mooy jubal kon ñu xam ne mbir yi yàlla ci loxo yàlla la nekk sunu borom nee na yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa man yudilillah ku yàlla sànk maa ngi lay yëgal ni falan tajid lahu sabil yow yonent bi na nga yëg ne munoo koo amal yoon goo ko génne ba mu jub amul ndax ñi yàllaa leen réeral yàllaa leen sànk comme yàllaa leen sànk nag fala yujadu lahu haadin kenn du am ku ko jubal wala sabila li hidayatihi kenn du am yoon wuñ ko gindee bi xaalin min al axwaal amul waaraate amul dóor amul tiital amul terroriser mukk loo def waa ji danaan keng keng rek waaw dara nga ko mënalul ndax yàllaa ko sànq yàlla nañu yàlla jubal allahu akbar sunu borom nee na waddu gaa yi bëgg nañ law takfuruuna ngeen weddi kama kafaru comme ñoom nu ñu weddee fa takunu sawaan yéen ñëm ngeen yem léeg-léeg nga gis ci dëkk bi nit ñoo xam ne gëmunu yàlla ba pare bëgg la cee dugal pour yaa ngi ñoom yéen a yem chaque jour dañ ne doomu aadama dafa bëgg moroom waaw nit léeg-léeg sax nga dégg ñu ne picc mu lakkum taat lu muy bëgg day bëgg moroom ñaari sàcc àndoon nañ di sàcc ñu ñëw ñu ne dañuy gas fondement bitig bi fekk bitig bi bitigu baraag la xam ngeen temps yooyu baraag moo fi nekk ñu ne dañuy gas fondement bi boobu da nga gis ñu tëral birig rek muy fondement ñu indi birig ñu indi baraag yi daal ko ci teg daal di daaj léegi nag loolu pour nga dugg ci c'est facile boo xëccee birig yi rek day am turu nga daal di dugg te lu ëpp ci yooyu birig kenn dëru ko woon am na ñuy réere waaw loolu dañoo yàgg si ñu yàgg ñi lañ bokk ndeysaan waay yàlla na yàlla xiif dolli waay loolu pour nit dugg ci bitig bi c'est facile temps yooyu sàcc yi noonu la ñu dañu ñëw rek xëcc biir gi rek biir gi génn rek nga dugg benn waay benn sàcc bi ñëw dugal loxoom ne day xëcc rek ndeke gaa yi nelawuñu gaa yi ne kirting loxo bi daal di dóor jaasi fi tëf loxo ba dem waa ji génn bi rek daal ne nii ci ginnaaw daal ne moroomam bi dugalal wala mu ne ko tey ñu dee tey ñu dee nañ daw tey ñu dee mu ne ko dugalal yow tamit waa ji dugal ñu téye loxo bi waa ji kërij kërij kërij ne téye nañ sama loxo de mu ne ko bala ñu koy bàyyi mu mel nii bala ñu koy bàyyi mu mel nii allahu akbar gis ngeen doomu aadama chaque jour dafa bëgg moroom gis nga ku bon xoolee ku li ma jox leen misaal ku yor si paquet cigarette bu bees tàq ku leen tuxal ma noo koy def da nga naan tëf paquet bi sa waay sa waay gis nga naan katu sàngara bu amee xaalis bu duggee ci baar xam nga lu muy wax na ma sut day taxaw ne na ma sut ñu tegale kees gi ba kees gi sut ko mu ne gars yi maa leen fee aye jëye jëye jëye gars yi sëqaxoo jël butéel yi commencé tuurante parce que lan dafa bëgg ñëpp naan xoolal ñuy jaay cigarette dañuy organiser ay kermesse lan mooy billet bi ku jënd paquetu maal bu doo dugg paquet bi mooy billet bi xoolal ñi ñi tasaare capote da ngay gis ñuy maye capote yi nii di ko tasaare ci soirée yi ñi def lu bon dañu bëgg chaque jour nit ñëpp bon parce que dañuy bañ ñu ne yow dong yaa fi bon ci koñ bi kër gi yow dong yaa fi bon kër googu kër gi yow dong yaa fi dul yeewu fajar dem jàkk moo tax bu paa bi di yeewu nga gaay waay gaay bu kenn yeewu na ñëpp tëdd gis nga waajoo ji dul yeewu moo naan bu kenn jóg tëdd leen xalaat gisu leen ma man damay tëdd parce que dafa bëgg duñ ko ne yow kenn la am naa benn grand bu dëkk sama kër su ma yeewee xale yi ñëpp jóg mu tëdd ma ñëw ne nii rideau gis ko mu tëdd moo wax turam ne ko diw man ko xale yi ndaw yi sax jóg nañ doo jóg baat boobu da koy énervé xale yi jóg nañ man ak yow dong yaa des ci kër gi ku jógul loolu chaque jour nit ku bon dafa bëgg ñëpp bon loolu lañ yàlla di wax nii yàlla mu ne waddu ñoom ñi bon bëgg nañ law takfuruun yéen ngeen weddi yàlla kama kafaru comme ñoom nu ñu weddee fa takunu sawa ngeen yem jullit bi bu demee nekkaat yéeféer fekk yéeféer bi lu xew léegi li njaago bi waxoon gaa yi nee na njaago de du dugg àjjana mu ne ah bu diw duggee ma espéré lu tax mu ne bu kooku duggee mu espéré moo kooku ñoo yem kooku du julli moom du julli kooku du woor moom du woor kooku du de ah mu ne moo tax bu kooku duggee ma espéré njaago bi wax na dëgg wala waxul dëgg billaay wax na dëgg benn kese la kon nit ñi bëgg lu bon chaque jour dañuy bëgg lu bon tasaaroo ci nit ñi dañuy bëgg ñëpp bon ndax bu quartier bi ñëpp bonee soo waxee ndaw lan la la xale bu jigéen bi di wax du man kenn lan la la xale bu góor bi di wax kër gi bu kenn woorul nga ñëw fekk ci kenn ku woorul nga ne ko nga bëgg a ñëw ne ko yow da nga war a ragal yàlla la lay wax pourtant du man kese de kër gi kenn woorul su ko defee nag ñu ne ñëpp a yem yéen ñëpp a yem waaw déedéet kon nag bu ñu dugal ci loolu yàlla yàlla lim nuy wax dafa bëgg ñu nekk ay nit ñoom ñi nekk ay yéeféer li tax ñu indi programme kéeféer ci àddina bi mooy bëgg ñun ñu fekki leen pour ñu nekk ay yéeféer comme ñoom alxuraan moo ñu ne waddu law tudd hinu lu mu ci teg fa yudd hinuun ñoom da bëgg nañ ngeen nooyal quoi ngeen nooyal comme ñoom ni ñu nooyale ngeen yem jeex na ku weddi yàlla ku gëm yàlla saa yu weddee yàlla rek day yem loolu tax yonent bi alei salatu salaam ak sahaaba yeeg salafu saalih su julli ñi daan dem jihaat lan lañ leen daan wax ah ay nit ngeen ñoom ñuy nit ngeen yori fas ñu yori fas ngeen yor ay jaasi ñu yor ay jaasi ngeen yor ay xeej ñu yor xeej ngeen yor fett ñu yor fett ngeen nekk ay jàmbaar ñu nekk ay jàmbaar ndax gars yi xam ngeen lan ngeen rawee ñii te xam ngeen lan lan leen rawee ah ngëm mu ne leen saxaaba yi dañ doon wax ne su ngeen weddee yàlla rek yéen ak ñoom yem ngeen ndeysaan su ngeen weddee yàlla rek yéen ak yéem yéen ak ñoom yem ngeen moo tax saxaaba yi lu ñuy fanaanoo mooy xiyaamul layl Xaalid su su àndoon ak jullit yi ba guddi mu bàyyi ba ñëpp nelaw day ñëw di wër tant yi tant yi su déggee gaa yi di naafila dégg gaa yi jàng alquran gaa yi sujud di jooy ñii taxaw di jooy mu ne gañe nañ gañe nañ gañe nañ waaye bu ñëwee déggee tant yi dégg ñi xaran mu ne affaire yi yàqu na ah comme ñun xarang raak ah xarang raak ndeysaan mais la ñuy tafsir sax nga dégg kuy xarang ci ginnaaw kar kar léeg la ñuy naafile nga gis benn waaye bu julli ñaar raaka rek arrière commencé kar kar gaa yi ne salaamaaleykum cheikh demal demal demal fee ci gin buntu jàkka ji nga tëdd foofu allahu akbar xoola sahabatul kiram ñoom wa yàlla ne kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun wa bil ashaari hum yastaghfirun allazina yabituna li rabbihim sujjadan qiyama allahu akbar waddu bëgg nañ law takfuruun ngeen weddi yàlla kama kafaru comme ñoom ni ñu weddee fa takunu sawa maa ngi leen di yëgal yéen jullit ñi fala tattaxisu bu leen jàpp minhum ci ñoom awliya ay farandoo bu leen jàpp yéeféer yi ñuy nekk seen farandoo ngeen di farak ñoom ah di ci wut ay xarit di ci wut ay copain di ci di ci di ci bu leen ko def fala tattaxisu minhum awliya bu leen deen jël ay péete ay farandoo ay alliance ngeen di allié ak ñoom wala nasiran al waliyu man yali amrak mooy ku yor sa mbir wan nasiru man yansurka ala aduwik nasir mooy ku lay dimbali ci sa noon yàlla nee na ñaar yooyu bu leen ci def benn na ngeen leen bàyyi ñoom ci kéeféer googu ñu nekk hatta yu haajiru ba ñu gàddaay fi sabilillahi jëm ci yoonu yàlla gis nga nafiq yi kon yàlla ban kuréel la àndal ci ñaari kuréel yi doon werante ban kuréel la yàlla àndal ah ñu ne nañ leen rey ñu ne yàlla àndal na ngeen leen bàyyi bu leen négocier ak ñoom bu leen leen topp hatta yu haajiru ba nu gàddaay fi sabilillahi ci yoonu yàlla fa in tawallaw suñu lànkee bañ a gàddaay génn ci naafiq ñëw ci dëgg fa xuzuhum na ngeen leen jàpp waqtuluhum na ngeen leen rey haysu wajadtumuhum fu ngeen leen mën a fekk li boo ko feexee tey ñu ne kii terroriste la de kii dafa bëgg a taal xeex gis ngeen mu ne nañ leen jàpp gaay yi nañ leen daan rey lii ku ko wax maa ko wax wala yàlla yaay li yàlla wax mooy dëgg gis nga naafiq yi bu ñu leen génnewul ci biir jullit ñi problème rek mooy am mooy li am tey ci àddina bi ndax mbooloo jullit yi ay naafiq dañ cee bëri ah ñoo ci ëpp jërëjëf yàlla nee na fa inta wallaw bu ñu lànkee bañ a génn ci kufru bañ a bàyyi yéeféer yi bañ a gàddaay ci yoonu jëm ci yoonu yàlla fa xuzuuhum na ngeen leen jàpp waqtuluhum ngeen rey leen hay su wajattumuhum fu ngeen leen mën a fekk wala tattaxizu minhum waliyan wala nasir bu leen jël jël comme péete bu leen leen jëm kon ku leen di dimbalante bu leen leen jël comme ku ngeen di aliyeel na ngeen leen bàyyi fële hatta yu haajiru fi sabilillah ba ñu gàddaay ci yoonu yàlla allahu akbar mbokk yi li yàlla wax rek mooy dëgg lu nu wiiri wiiri wiiri wiiri wiiri olof yi nee nañ wiiri wiiri jaari ndaari rek te yàllaay ndaari mu ngi taxaw ci bunt bi rek wa annahum ilayna la turjaun yàgg yàgg yàgg yàgg rek ci yàlla la ñuy delluwaat waaw tukulóor yi nee nañ ko baytol juuti juuti koo foofu artata koy yaa muhammadu dégg ngeen loolu ana tukulóor yi ko baytol juuti juuti koo foofu artata koy yaa muhammadu boo takkee say rajo commencé ne damay tagg yonent bi di yuuxu naan taraxaa yoneen yéeg na njool màkkaa leen gën nga yuux di yuuxu way bi fu muy teeri teeri rek mooy yaa muhammad foofu rek lay teeri ji ah wala foofu rek ngay teerali ji ci yaa muhammad rek ngay teeri ji waaw ñu nit fu ñuy teeri ji mooy ci kanamu yàlla rek wër geeg daw geeg tappale geeg guddal geeg gàttal geeg yépp ci yàlla la ñuy delluwaat waaw amul amul kenn fooy wiiri foo jëm lu dul ci yàlla afa hasibtum annama xalaqnaakum abasan wa annakum ilayna la turjaun da ngeen yaakaar ne du ngeen dellu si man dem leen man yàlla sonn ma maa ngi toog taxaw di leen xaar rek waaw maa ngi leen di xaar rek du ngeen wiiri wiiri ci man ngeen di jëm si kon nañu moytandiku mbirum naafiq yi buñ ñu nax ndax yàlla wan nanu yàlla leeral nanu lan mooy seen pas-pas lan mooy seen taxawaay ci pénc mi bëgg a dugg ak jullit ñi ndeke ay naaféq lañ tëral ay war tëral ay pexe yàlla ne yéen jullit ñi na ngeen lànk ndax ñoom bëgg nañu yéen ngeen weddi comme ñoom nañu weddee ngeen yem bu leen leen jàpp comme ay farandoo bu leen xaritoog ñoom ba ñu gàddaay génn ci naaféq jëm ci yàlla suñ ko defee baax na suñu lànkee na ngeen leen jàpp jàpp gu metti na ngeen leen rey fu ngeen leen mën a fekk bu leen leen bàyyi ci dëkk bi sax ñuy tamambalu na ngeen leen rey kon yàlla ñan la àndal mooy mbooloo mu njëkk ma ñi ne woon nañ xeex ak ñii ñeneen ñi ne déedéet nañ muñ yàlla ñi ne woon nañ xeex lañ àndal wala moo ngi ni waxtuluhum na ngeen leen rey hay su wajatumuhum fu ngeen leen mën a fekk wala tattaxizu minhum bu leen leen jàpp waliyan ñu ngeen di faral wala nasiran du ñu ngeen di utal ndimbal kon mbokk yi li mooy darsa tey noo ngi jéggalu sunu borom jumte yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa